bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa moolana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokk jullit yu tedd yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax Eh, nekk ci waajtaayu màggalu Kazu Rajab màggalu Kazu Rajab bu ñu ko waxee xel yëpp danañ dem ci ki ñuy màggalal muy Cheikh Ahmadul Fadal radiyallahu anhu ñu bëgg leen indil tey ci dara ci ak dundam ngir nit ñi man cee jëriñu bu baax a baax ñu tànnal leen ren ci documentaire bi nga xam ne moom leen dégtal ci ci ndigalul sëriñ Abou Mbacke moom Cheikh Ahmadul Fadal eh, ci ndigalul jëwriñam sëriñ Bachirou Mbacke moom Cheikh sëriñ Abdul Fattah mi nga xam ne moom moo jiitee lépp lu jëm ci yëngu-yëngu màggal gi sëriñ Ahmadou Baro yi mi ñuy teg lépp lu jëm ci teg loxoom lépp lu jëm ci wàllu communication ak culture ñi ngi leen di fas yéene indil ñaari tomb ci dundu seriñ Falilou benn muy réalisation yi nga xam ne réalisé nañ ko ak dundam ñaareel bi mooy relation yu rafet yi nga xam ne moom la amoon ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la jamonoonteeloon bu ngeen toppee jataay yi nga xam ne ñooy feeñ ci biir documentaire bi da ngeen ci am njariñ lu mat sëkk ñu seex ko ak ay personnalité yu wuute ñoo xam ne jamono te ñoo Cheikh Amadou Fadal ñuy wax lépp ñu fekke woon ko dund ak ñoom kon duñ def lu may leen ngeen topp documentaire bi 1927 làqoog sëriñ bi dafa mel ni tukkiteel ak dund ngëcc xel yëpp jaaxal ñépp nekk di tiis wax ni kenn mu sa gis tiis mu toll ba tax na wuutu ko ci yooyu jamono lu jafe woon la nekkul woon loo xam ne lii doomu aadama war na koo man wala nga xam ni ko koy man day doon doomu adama joo xam ne yi sëriñ bi koy dimbalil boppam ndax yooyu jamono ni nga ko waxee jamono yu tiis la woon te ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon di nooni mbër ji di tuwaab yi ak ñu àndal socc woon nañu fas yéene ree ndax jàppoon nañu ni yoon wi moom gannaaw jëm nañ ko yàq ci wet gu jëm ko tasaari ci wet gu mënuñ ci dara seen li ñuy dese woon ci si yaakaar ko su néew moo di jàpp ne moom lu mën di xew mu yéex mu gaaw ku baax ki dina fi bàyyi ko te saa bu fi bàyyi ko moom mi nga xam moo téye woon yoon yoon dina tasaaroo wi njëg te ñoom ci seen bopp ñi ko noonu danañ jàpp ci taxawaay tasaare boobu ndax danañu am lépp luñ dugal ci pexe dañ ko jële ci bitim yoon wi dugal ko ci biir yoon yi ngir tas yoon wi loolu donc nekkoon di seen yaakaar ah waaye sëñ Modou Moustapha jóg taxaw tem at yim fi jëkk a nekk yëpp itam yëpp mooy mànkale yoon wi dajale leen boole leen ñu nekk benn ba loolu yi nga xam ni moom la noonu séentu woon yemul ci bañam yoon wi dafa gën a yokk gën a am doole gën a dëgër takku ni kenn nit ci gannaaw sëriñ bi sëñ Modou Moustapha ba loolu moo tax sëñ Modou Moustapha mën na liggéey liggéey bu bi bii nga wax muy tàmbali jumaa yi bi mu fi bàyyi ko nag sëñ Fallou daal di taxaw bi mu taxawee moom itam itam yëpp nekkatul ci lenn lu dul def liggéey bi leen fi sëriñ bi bàyyi loon muy jumaa yi Tuubaa ji te xam ni moom ci boppam sëriñ bi da ko ci joxoon ab cir boppam feeñ gi mu feeñ ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci rajab te loolu mooy al-Isra wal te guddi googu ci lañ jox Moustapha alayhi salaatu salaam mbirum julli waaye kon ki feeñ ci guddi googu moom mënta ñàkk ñu taxawaloo ko julli loolu julli boo koy taxaw dangay ngay taxaw fa ñuy jullee amul boobu ci àdduna ñaari yitte def ko mu benn yitteem nga xam ne boobu eh, da nga dégg di gone gu ñaanal mag naa maam yàlla nga fekkee mat ak jumaa ji ndax mel ni jumaa ji moom ak matam ci xarnu bale lay ñëw waaye du ñëw léegi waaye ba mu ko tàmbalee ak bi muy àgg dafa mel ni kiimaan la waaye kenn foogu ko waaye da ko defoon muy benn yitte. di def balaa sas benn tali bi ba benn benn seex. li mu bayal boppam te nun noo koy bay mu dajale ko ñu peese ko ba def ko benn kayit mu woo daam Dramé ak tubaab bu ñu wax askan wi teg ko ci seen loxo bàyyi wuloon kenn itam bokk yëpp la woon bokk itam kenn ku ci ne ku wuyu si ku ne itam ña ña ña wuyu si moom yaa yaa leen fi ko loolu loolu la ko yàlla defaloon. six cent soixante francs ci loo xam ne nag bokkut ak xeer yi ñu daan jëlee carrière te kenn jënd ko bokkut ak ciment bi gaa yi daan indi te kenn jënd ko bokkut ak li fi Cheikh Moussa mbàkket def ci teg première pierre ba ba ba ni miir ba jóg ba kawe loolu lépp bokkul ci ci xaalis bi moom mooy liñ daa fay liggéeykat yi yi nga xam ne dañ naa fayu ak architecte yi waaye booba baay Fall yeeg Baye Jenn yeeg Baye sàll yeeg baay Ndiaye ñëpp laa dem carrière di fa noor ba nawet bi ñëw ñu soog a ñibbi te benn xeer bu ñuy jël génne ko di ci fay xay amul da ngay gis ku ñëw yenu aw xeer ndokk ba ba ba jumaa ji gis ku indi otoom chargé ba mu fees jumaa ji wàcc dem yoonam waaye lii xaalis boo xëyee daal luñ fay la architecte yeeg ñi daal liggéey ñuy fayu 677 million six cent quarante six mille trois cent quatre vingt huit. jumaa ji ci boppam melo wi mu mel ak taar bi mu am rafetaay bi mu rafet képp koo xam ne kii xamoo mbirum sëñ Fallou da nga naan eh archive bi de mooy góor dëgg dëgg dëgg dëgg waaye dara du ci archive bi lépp sëñ Fallou ndax dañu ko liggéey. pàcc bu nekk morom defuñu loo xam ne dañuy tëb rek daal ni ay ci nii nii de plan moom déedéet fuñ si toll dañ naan fii lañ toll architecte bi ñëw indil ko la nga xam ne moom la xalaat moom sëriñ ba yor crayon boppam toog architecte bi toog ma toog ma ne ko nii la dindil lii dindil lii defal lii defal lii bu defee ba noppi del si wanaat ko mu di ko corriger defal nii def ba mu jeex takk ba mu agsi ci fi mu bëgg mu ni ko lii la ñu def ci loolu ci la ñu dugale euh, jàngukaay bi ni moom mënta ñàkk ndax faaw ñu defal kër moo sàkkit ki ko doon si ñam sax mu jumaa ji ni ko def ba mu egg noonu nii bés ba mu koy yëgle nañ ko julli suñ ñëwoon mu ne nañ woo sëñ mu julli ko wala sëñ Bousso bi wala sëñ Ndiayane loolu bu boobaa ab damu dama lay doon waaye moo bind xutbaam yéeg mimbar jàng alxuraan yoo xam ne fa tabaarakallaahu ñëpp dañoo daanu xutba arab boo xam ne bii fa tabaarakallaahu moom mi nga xam ne moo fi nekk sëñ bu ñu demoon bis boo bii muyut ku ko ku ko yéegal mimbar dañuy def ci yàlla rek waaye lañu xam ne yëf yi am na am na am na damu dam loolu ba mu noppee dafa dal toog ne léegi dañu wax ne képp ku dem da nga fi bàyyi naal maa ngi séeréel ñépp ne amatuma naal loolu nag moo tax ba mu taxawee la mu njëkk a itewoo moo di màggalu Touba gi mu dellu ko ci tu sos ko ci Touba ñu di ko fi def ndax loo ko jiitu <coughs> sëriñ bi dafa digle woon nii na ko kenn ku ne di defe këram ndax li mu am ci yoon wii bu fekkoon demul woon du ko am te bu ko amuloon woon kon nun duñu xam fu nu jëm ndax ba muy dem li ma waroon am lépp ci baatin amoon na ko waaye li ma soxaloon mooy yàlla jox ko loo xam li mosu ko jox mbindeef ci ñi koy jaamu ak ci kilifa yi ak yonent yi yàlla digganteek moom ñu bindante sartante moo dem ci liggéey ba ba dellu si am lii nga xam ne moom la am te kenn mosu ko am xelum boppam kenn xon ku ne xam na ni du jeex mukk xalimaam du jaa daaj mukk waaye nag rëy na rëy koo xam ne gi boppam doyatu ko ci moo tax mu diggal kilifa yëpp ak ni képp ko di taalibe bis bi bu dellusee nanga ko ko santale def ci bernde def ci jàng xasayit jàng alxuraan bégal sa njaboot ba ñëpp xam ni lii moo ko tax a jóg boo ko defee muy cant guñ ko santale boromam ci la waxe woon nit ni ñaari keef yi li ko tàmbalee ci ganaar ba ci giléem uh, bu xeebu ci dara yéemu ci dara waaye booba sëñ Abibu nee na daaw daawuñ ko woote te bu bis bi ñëwee rek kenn ku ni jàng mu sëñ bi wax ne bu ñëwee nañ ko ci santale boroomam ci jàng alxuraan xeeti salaatu ala nabi xeeti zikkar xeeti tag bu safa waaye kenn ku ne sëkk dañ koy loolu ñu ko woon bi mu wàccee liggéey ba ñibbi si Tuubaa Cheikh Amadou Moustapha tabarakala wéyal xalaat boobu ba mu ca nekkee ne ca bokkoog waa kër sëriñ bi ñëpp taalib bi yeeg doom yeeg ñëpp ba yàlla def moom tam mu làqu Cheikh Ahmadul Fadil wéyal na bés boobu maanaam benn yoon wala ñaari yoon hasaba riwaayaat waaye dafa dafa dafa xëy nag bëgg ñu delee ko ci bés boobu bii nga xam ne mooy fukki juróom-ñett yi nga xam ne sëñ bi ko waxaloon boppam. sëñ bi woo kilifa yëpp ñi ma woo ñu si sama bind li àll ne leen bis bisu bi Tuubaa lañ koy defee soppi nañ ko ci bis bi nga xamante ne sëñ bi ci jógee ba Mbacke Bari sëñ bi njëkk a woote Touba màggalu Touba gii ci Touba gii 47. ñëw fi yombul woon waaye Serigne Fall fi ma ko njëkk a lijjante moo di waa chemin de fer ñu yoroon saxaar gi ñoom la gis wax ak ñoom ba déggoog ñoom ci ñu di ko defal saa bu màggal ñëwee dëkk yu mag yëpp. ñu wut fa ay saxaar yoo xam ne màggal doo nga leen tax a jóg xam ne train spécial lañ leen di tuddee dugal ca nit ña indi leen Touba loolu fi la jëkk tàmbalee liggéey bu boo xam ne yu jëm ci Touba la ci lu fi indi nit ñi li ñu amoon nag ci wago yoo xam ne moo mën a safi nit dafa néewoon na néewoon néew boobu fekkoon loolu rek la kenn du mën a màggal si waaye murid xër gi ñu xër te tubaab yi xam ko dafa tax lépp lu tubaab bi ma sa am ci lu mën a béréngu ci raay bi rek da koy bis boobu dañ koy génne wagoy fas yi koy nag yi wagoy marchandise yi lépp la ñuy teg ci raay bi mur yi dugg ci ba fees dal te loolu bu fekkoon sëñ Tuubaa kenn du ko mën ndax bu jóge Ndakaaru wala Ndar wala xaay ba fii ci lu demee noonu neexut bu fekkoon da ci réew tubaab yi kon dañuy kalaame sax ñooy naan nit ñi dañ noo bëgg a rey waaye murid yi seen xol la ca sedd guy ñu nangu ko dañ koy fees del del del del del ba nga xam ni wago yi nga xam ne sax dégg nga dañoo am lu leen muur ca kaw dañu toog ca kaw xam ne dañuy fees mel ni kenn xamul ñu toll tubaab bi sax dañuy waar naa waaw ñi xanaa bëgguñu seen bakkan te fekk na bëgg nañ seen bakkan sëñ bi leen ko jaral loolu mooy bu ko dee ñu sëriñ bi am ci tubaab bi ñu wàññi paas bi foo jóge jëm Tuubaa genn wàllu paas ngay fay defal leen fukki fan juróom ndax booba boo duggee saxaar da ngay aller retour boo amee ñaari fan ñett moo moo moo moo mu jeex waaye fukki fan ak juróom la leen koy may xam ne boo jëndee paas bi da nga am fukki fan ak juróom dem Tuubaa mën a delsi bëgg-bëggub sëñ Tuubaa bu ne su cay dugg da cay dugg ba xuus ya xuusin woo xam ne da day mujj rek fi ëppi loxo xam nga màggalu Tuubaa fi ne dem na ba dootu màggalu Tuubaa màggalu la ñi nga xam ne nag ñoo kon ci bi réew ci jamono te nga xam ne saxaar fa saxaar mënta ñëw buy jóge foofu ñëw ba fii yooyu li nga xam ne ay réew yi ak ci Afrique occidentale française la juróom-ñetti yooyu le ñoom sëriñ bi dafa waxante woon ak ñaari compagnie roppalaan fi noonu ci yooyu jamono Air France ak UTA ba ñoom itam bu màggal gi dikkee dañuy yombal màggal gi lool dañuy wàññi paas yi defit ku jënd paas ku ne man ngaa toog weer dem delsi nii la sëriñ bi doxale woon ñi nga xam ni moom la ah, li ci des mooy ñu nekk ci yu gën sori ñoo ñoom ci bato yi lañu daal ñu fu ne fu ne la ab délégation di jëlee jóge léegi Europe Asie Amérique ah nga xam ne bu dikkee day mel ni mawsim la boo xam ne mawsim diini la waaye dafa mujj dem ba ba mawsim aalami la nga xam ne économique bu senegal sax da ci yokk da ci yokk dëkk bii dem moo ko nat dalaa wax it na bu kenn tabax te jumaa ji agul ndax bu jumaa ji àggee nag kenn ku ne na nga tabax tabax nañ tabax yu rëy ba kuy ñëw xam ne fii sëñ Tuubaa bi dëkk waaw waaye feeg feeg feeg jumaa ji agul nag bu fi kenn tabax moom sëriñ bi ci boppam moo sant architecte bi nga xam ne mooy architecte mooy Escatina ki defar jumaa ji moom la sant ni kon na def plan pour dëkk bi kooku def plan boo xam ne bi ci jumaa ji la ko la ko doore lépp jóge ci jumaa ji dellusiwaat ci jumaa ji muy def ko mbedd yu yaatu fii ne mbedd yi ngis te ji foofa la war tàmbale woon nga xam ni dañ doon waaru sax ndax mbedd yu yaatu lañ naan ndax yaatuwaay gi ëppoon na fi ñoom waaw moo Cheikh Sëñ mu ñëw ne ko dama dëkk bi plan baa ngi nii defaroon naa ko ba fay ko donc dama am ci ñuy tëbbi ci àll yi itam boole naa ko ñoom boole naa ak yoon ak yow foo xëy ñu xëy fa loo loo jox ñu ñu leeral ko waaw muy 1959. mu ne sëñ Cheikh nag ñaar rek am ku tabax tàggoowul ak koo xam ne ki tàggoo la ñu tere ko mu tabax ku ci yoon du jot rek nañ ko nañ ko toj ndax waxoon naa ne bu kenn tabax te jumaa ji agul waaw. nit ñi lu leen neex lañ doon dëkkee ndax booba àll rek la. boo dikkee dangay seet fi nga xam ne moom nga bëgg nga xotti fa ni nga bëgg sàkket def sa yëf mu jeex la dem keneen def noonu keneen def noonu kenn du seet nii la wala jub naam jubutu yooyu yëpp loolu moom lañ doon doxale nga xam ni mbedd yu sew mu la woon yoo xam mel ni eh, ndiiru jaan dégg nga da ngay topp mbedd ba yàgg mu ni wala nga topp mbedd ba yàgg dégg nga mu dëpp wala nga topp mbedd ba yàgg ak kër ganeen nga xam ni kon loolu awul woon wenn yoon woo xam ni wees moo a waxee yoonu ab yoon la ci ci yoonu dëkki nii waaye sëñ bi wax ne fu ñu àgg rek ne ne ne sëñ Cheikh bu fu ñu àgg te te mu war a jàll dama jàll ba ci man mii mbedd mu njëkk a natt gannaaw mi ñett bi nga bàyyi koo ci jumaa ji wuti gannaaw dara mais mooy mbedd mu njëkk a natt ci natt bi maa ngi ci ànd ma ko ñaareel mooy mbodd mi ñu xaaree këram gi ci digg kër gi dafa ne dafa nag ma jëkk itam nañ ma jëkki ñu daal di xaar kër gi boolem boolem di boolem waa waa waa kër boo xam ñëpp ñu génn la keesam képp lañ fi bay nga xam ne ci guddi gi lanu lanu lanu lanu taxawaatal aw aw seeg sàkk bi daal génn ñooñu waaw léeg-léeg ñu àgg foo xam ne fii dañuy jaaxle lool waaye bu bu ko ko Euh, bu ko ko euh, bu sëñ Cheikh yónnee Alaaji Baara wax ko mu ko nekk na na na nooy waaye lépp dafa toog ci digg naaj bi. Euh, ci digg pënd bi ci digg ngelaw li ci digg tàngoor bi danga daayewul deful nen xasaay di yem ca kaw ba lépp a jeex ndir su gàtt te lépp nag li ci gën a doy am ci mbégte ndax. am sa kër ñu di ko toj neexut waaye lépp nit dañ ko ndax xam ni sëñ tubaa da nga tax ñuy def te liggéeyal sëñ tubaa fexe ba dëkkam bi gën a dëkk a baax ci dëkk yi gën koo rafetal moo tax ñëpp kenn waxtu jot ñu ngi jàng sayt ba mu jeex ba waxtu ay terrasse ñëw na fi lool ay tiyu na fi am ak ci tabax yoo xam ne yi tabax sëñ tubaa waaye fu ñu ci àgg fu ne lañ koy tëj loolu sëñ bi def lu te it non nañu nañ nañ lépp lu ñuy def rek loo xam ne yoon da koo def ko jëkkee ci man. plan boobee nag gannaaw gi ñi nga xam ne ñooy ñi fi war a sëñ Fallou tey ay jàmbaar kenn ku ci na tey ca plan booba nga sof ñu di ko sax bàgg si fay tey fii waaye bii mooy ndey ji day baa ngi nii moo tax fi ne dëkk bi yomba dem lool ndax plan bi benn xalaat la woon jumaay ji mooy dëkk bi bu ñuy wax dëkk bi jumaay jee tax kon nag li am solo mooy ku jóg foo ay jóge war a agsi mën a agsi jumaa ji bu gaaw gaaw ku jóge jumaa ji mën a génn dëkk bi gaaw gaaw noonu lañ ko def waaw ndax dafa jumaa ko daal moo mooy ndey ji cinquante neuf boobu fekk na sool sool bi ci mujjoon ak sool bi nga xam ne moom mujjoon ci liggéey bi fekk na làmp yi tàkkal waaw nga rek lañ doon def ci diggante yooyu ak nuñ ko wootee waaye moom fekk jumaa dafa am leneen lu mu defal murid yoo xam ne it dañ koy gis te ñu bari xamuñu na mu demee muy penc mu rëy mii ci jumaa ji boo seetee jumaa ji fa miir bayam yam digganteem ak sëñ Fallou yaatu yaatu na lool digganteem ak euh, bi yaatu na penk bi yaatu na lool fi ci gën a xaw a bañ a yaatu rek mooy ji wet gi féete nii te moom moo ko def te ba koy def des ko ñi ma wut a wax booba waaye am na ñoo xam ne métti woon na lool dañ naan mi mi penc lu mu doon ah barab bu yaatu nii de yàq la de jaaxaloon na nit ñi booba seetal ko rek kenn xamul loo mu jaaxal leen dégg nga waaye ñi ma ñuy wax waaye léegi gis nañu ni bi fi million ñëwee tuuti na léegi si la ma xalaatoon te <laughs> tuuti na waaw tuuti na léegi te bu njëkk booba ñëpp yàq yàq lañ ko ñu bari bokk loolu ci yàqoon li ëpp na ëpp na hmm, nit ñi dañu war a gën a jigéen jumaa ji ndekete moom la moo gis noonu gisuñu ko kenn na tey ku ko mën a des ko yokk ndax bu fekkoon demaloon nii million nit ñi fi ñëw ci màggal duñu fexej kooku ba tey ci mbiram la waaw loolu sëñ Fallou jëkk def mooy fexe ba baag ak goj jóge fi daa daal di jënd ci benn société française bu wax demaas ca dakaar benn pompe hydraulique ci yi gën a xarañ cooy jamono am doole ak crépine gépp ñu dugal ko ci teen bi fekk na jàjj Fall sëñ Moussa Mbacke maa ngi mujj wax jë bënn ko muy teen boo xam ne du jeex mukk kii mën di ci feeñ di ndox mu neex te ndox mu neex lu jafe woon la li ci mata xam xamle nag moo di njëgu machine boobu yi ak installation yi ci war yëpp ak essence baag la koy doxal la koy baat lag lépp sëñ fa la ko doon fay ci poste boppam loolu lu mat a xam la loolu lu ngoo gi doon fay du lu kenn doon fay te booba xaalis yombul loolu c'est important ndax booba ndox ci réew mi lu jafe woon bari na dëkk yoo xam ni sañcu leen woon ñaa ñàkk ndox wala mu ñu tas ngir ñàkk ndox sëriñ bi ci eh, xaalisu boppam ak ci jibay boppam ci la defee ay teen yu bare bare bare bare yoo xam ne ci biir mi leen gas ndax dañuy ñëw diis ko mu jox leen ñu daal dem def ko te lool booba ndox jafe na lool loolu la mu ci def ci ay lim mënee su ko wax bari dëkk yoo xam ne tey boo amee ba tey ñi nekk fa sëñ Fallou ah ci jamono tubaab yi it te loolu kat ci jamono tubaab jamono ba ak ginnaaw ga tubaab yi la lépp ñu eh, moo ko doon def ci jamono tubaab yi itam am na gouverneur général boo xam ne moo fi nekkoon ca Dakar ñu tubaab Paul Béchard moo doon woo commissaire de la juróom yi nga xam ne moom la France yilifoon ci soow jant mooy ki nga xam ne moo doon seen kilifa mayoon na ko ñaari forage yu mag te booba forage xewul ndax booba li xewoon booba mooy gas teen rek ci ñu ko daan gase ci baax waaw gas boobu waaye forage yoo xam ne mooy machine koy gas àgg ba ci bët bu rëy ba génne ko muy lu a dundal dëkk yu bare bare bare xamandal leen kooku amul woon waaye gone général Béchar moo ko may ñaar te forage yu mag ni ko seeta fo ñu def ko forage bi ci Darou naan moo fi jëkk ne nee na moog ci Darou Marnane lañ la ko gouvernement bi jëkk a jox mu notalee ndox gi ñàkk gam ñàkk Darou Marnane ak Darou Salam mu boole mu ne nañ ko def Darou Marnane Touba Touba Touba ak Darou Salam bokk benn bi mu notalee Darou Mouti mun nañ ko def Darou Mouti bi nga xamee ni moom nañu suñu bopp am na forage yu bari yoo xew ci réew mi yoo xam ne moom moo ko deful bi fi tubaab yi nekkee it dëkk yi nga xam ne dañoo ñàkk ndox bépp dëkk boo xam ne di du moom moo ko euh, joxeel boppam joxe xaalis ñu def ko joxe na ndigal ngóor gi tubaab yi def ko fa ba tax na loolu itam lim la boo xam ni kenn mënu koo lim gannaaw loolu mu teg ci leeral euh, tàmbali leeral dëkk bi ndax dëkk bi amuloon courant te jumaa ji danañ toll foo xam ne fii ci liggéey bi dañu soxla courant jumaa yi it amul woon ay rajo yoo xam ni boo ci nodd mënees koo dégg foofu it moom sëñ Fallou ci boppam mu jënd ci kër gu ñuy wax Sofika ca dakaar benn groupe électrogène bu mag a mag moo ko xam ne groupe bu leeral la indi ko fii moom te ak yi si jumtuwaay ci awaar yëpp ñu installé ko wut ay fiil yoo xam ne dafa dem wër ci biir jumaa ji leeral ko defi rajo ci kaw fii sooro yi toll woon leeral pénc mi leeral kër sëñ bi mooy jumtuwaay boo xam ne bii guddi la daan dox ci maanaa bu jant soo ñu taal ko ba xaaju guddi ñu fay kooku sëriñ joxaane moo ko yoroon ah bi nga xamee ne nag yooyu wees na loolu nag la sëriñ bi sant gouvernement bi ñu jëlee courant ca Ndakaaru bu haute tension te war du am doole indi ko ba fii mooy bii fi ne tey suñ faloo ko fi indi yooyu jamono nga xam ne dimbali na Touba waaye dimbali dëkk ndax dëkk yi nga xam ne yëpp jël liñ ba jaar na fa fu mu fi jaar ñoo leeral leen kooku xew ci xewali Sëñ Fallu bokk yore yi jamono yoon yim si Touba amul ci wenn yoon woo xam ni godrong nañ ko dikk Tuubaa yombul woon ndax bu fekkee Ndakaar nga jóge la ko tàmbalee Ndakaaru ba Tuubaa boo ñëwee ba cene ba foofu la godrong bi am cene ba ba njaarim rang-rang la woon foofu nag ci la sëriñ bi sant gouvernement bi Senghor ñu jëlee tali bi ca cene ba indi ko ba Tuubaa gi xam ni léegi moo dem Dakar yomb na lool waaye yooyu jamono jafe na. tuwaar fa kàll dëkk yëpp da nga gindeekoon ak Touba loolu xamuñu coono bi ñu daal ñoom ci ay jamono te loolu fa la ko benn bés soxna may ñëw ni ma maxtaar man kat dama bëgg dem. Touba tey ci guddi laylatul bésu guddi laylatul xadar la dama bëgg bëgg dem yóbbu Touba dama bëgg yóbbul sama mag. sëñ Touba sëñ Fallou dama ko bëgg yóbbul ndogu ndogu bi ñett wala ñeenti ganaar la woon mu def ko ci benn paan et benn bool plutôt benn bool yi ñu jóge e, Touba ci jóge jógee Daaru ci ngoon gi yóbbu ko tuuba ci la jëkk jëre gise sëriñ Fallou booba yoon amu fa booba ay piste la ñu amee booba xàll ay xàll la ñu amee xam ne dafa bari suuf ak yooyu oto benn oto ban sama oto 4x4 la woon booba booba oto 4 x bariwul ci réew mi et moo tax mu mun ko jël dugal ci ñu oto bi yóbbu ko ndax bu dul loon 4x4 du mun jàll du mun jàll ndax suuf si ginnaaw loolu raay bi mu ngi yemoon ci gaar bu mag ba te gare bi ak dëkk bi ak jumaa ji ñaari kilomètre la te mboolem matériel moo fi ma sa wàcc bépp simon weñ leneen foofu lañ ko daan jëlee di koy indi fii sëriñ bi bëgg lu gën a noppal nit ñi bëgg lu gën a noppal itam ñiy liggéey tax mu jële fa raay ba indi ko ba ci gaar bu ndaw fii nga xam ni di kon diggante fi mu yemoon ci gaar bu ndaw mooy fii essence bi nekkoon ak jumaa ji juróom-benn téeméeri mètre la xam ne day tax wàcc marché bi gën a gaaw day taxit bu dee jamonoy màggal nit ñi gën a jige dëkk bi marché Ocass gi it moo ko sañc euh, ñaan fi wax ne képp ku bëgg dara dana fa dem ndax booba marché bi booba kenn néew fa ab gott la itam euh, te euh, rab bu ñu xam mu dugg yi daal moo fa newoon di xool xool yi mu képp sëñ bi joxe ndigal ne Euh, la marché boobu moom marché Sëñ Tuubaa te képp ku bëgg dara na nga fa dem. ndax marché bi dara mosu fee nekk li ko tàmbalee ci kër sëñ Fallu ba kër sëñ Nguy gi lépp ab àll dong la woon. ngeer la woon kenn dara nekkatu fi xanaa seko bi te seko bi booba dañ ko def ci digg àll bi loo ma sa soxla feneen nga koy jënd ji ci biir dëkk bi. waaye dara mosu fi woon nekk sëriñ bi ñaan ci boppam joxe suuf ne nañ ko bucca foofee def ko suuf soosee moo indi lii tey waaye ba léegi. léegi nag nañ marché yi du jeex mënuñoo yëpp fii fii dañuy bàyyi ko ci marché bi nga ñëw nga ñëw fii <laughs> su jeexee joxe nga nga delloo waaye kenn mënatoo. léegi gis nga ne marché bi man fees dal lu waay dee ay indi ko fii. lépp lu nekk ci koom-koomu àdduna bi ak Sénégal ñu ngi koy indi fii ngir bëgg mu jar te day jar gox yi nga xam ne moonu wërit réew yi ñu wërit seen marché bi yëpp ngi ñëw fii muy léegi di barab boo xam ne nii kenn mënatul dox sa itti ci réew mi ci maanaam wetu économie te jaaroo fi loolu ñaanam ngaa ko def mbirum armeel yi la ko jiitu ab ñag moo ko ñagoon ñagu salaan ñagu tëbanaani ñagu ngeer moo fi nekkoon ku ñuy wax Alaaji Abdou Aziz Mbay di taal bi sëñ Fàllu moo dikk sëñ bi ñaan ko ndigal ni ko boo mayee ndigal danaa ko miir sëñ may ko ndigal mu miir ko miir boo xam ne bii miir en dur bu kawe boo mu nekk benn bunt loolu sëñ Fallou ko fay def ba loolu àggee fii nga gis tey ñu di fi jullee ñi faatu sëñ Fallou ko fi de moom tam ndax moom tam El Hadj Alla Samba Guèye <coughs> taalibeem bu mag bu nekk Kaolack boo xam ne moo doon représentant moo fi doon baatam moo ko waa daayira Kaolack ñoo ñaan sëriñ bi may leen digal ñu def ko fi sëñ may leen digal ñu tabax ko fi Seexuna Amadu Xadim dafa waajoon a bëgg a aji ba ba wax ñi nga xam ne ñoom lay àndal wax seeni jëmm am na ci ñoo xam ne ay ci jege ñaayal yi ne fii lañ am na ci ñoo xam ne naari gànnaar lañu waaye taalibeem lañ mu tudd ñam ñay dem wax itam yoon wa na muy demee waaye ba mu ba mu demee ba dara desuloo muy dem ñaari gàllankoor am ñaari gàllankoor bii bi gàllankooru baatin la benn bi bu zaahir la ndax dañ ne ko bala ngaa mën a dem da nga bindu leetar sàkku tubaab bi ndax yow fii mu ne tey fii nga ne sago bàyyiwu la fi tubaab bi iqaama ijbaar iqaama jabriya la nekkoon ci jaareem ba mu jógee ca géej ga ba ba ñibbisi fu mu nekk rek tubaab yi ñoo ko fa ñoo ko fa teg ci jàpp ne euh, ci seen coobar la war a nekk ñeenti ati gànnaar yu mujj yi juróomi ati ci yéen jolof ak fukki at ak juróom yu njaareem fu ci ne iqaama jabriya la ñu ne ko nag bala ngaa mën a génn réew mi da ngay bindu leetar sàkku sàkku bu baax a baax ne nangam nangam mooy nag loolu moom euh, bi bi noonu la bataaxel ci sàkku jumaa ji bataaxel ba sëñ Mbàkke bu soo ko bind sëñ bi bind ca suuf mustaktibu haati nangam nangam Muhammad Muhammad ibn Habibillah loola euh, ñu ñu autorisé ko waaye bind bind tubaab yi daal di sàkku ay génn daal kon nañ ko bàyyi bi nag te boobu mooy bëgg na kii dañ ne dafa wax ni yëg na ne ni mel ci Moustapha sallallahu taala alayhi wa dem ba ba egsi fi nga xam ne fii la Moustapha tëdd loolu moom euh, su fekkee roog yi yaram yi àttan na ko roog yi du ko àttan su fekkee yaram bi dana ko àttan roog yi ko àttan kon nag euh, na ko na rek loolu gannaaw xalaat na ko yàlla dogalu ko ci zahir Cheikh Amadou Fadil daal ni moom loolu moom kon da koy mottali aj googee génn aj la ci yoonu murit ndax ña ca àndoon mënatuñoo àndaat Cheikh Amadou Fadil di jëmmi Serigne Touba Serigne Gaawaan di rakk Cheikhul Khadim di taalibeem bu am ngërëmam Serigne Mbacke Bousso di di di rakkam di taalibeem bu am ngërëmam fees dala xam-xam ak ñañ àndaloon ñooñu yoon amatul beneen délégation aj bu mel noonu nga xam ne aj gi mat na ñetti weer ak ñaar fukki fan ak ñeent genn aj la aj gi mat na ñetti weer ak ñaar fukki fan ak ñeent ndax ñu ngi jóge Touba fukki fan ak ñeent ci weeru koor 1346 ñu ngi delsiyaat Touba ci bésub 8 muharram 8 muharram 1347 ñetti weer ak ñaar fukki fan ak ñeent la aj gi doon waaye fu nekk lañ dem fu nekk Liban Égypte Syrie fu ne te fu fuñ taxaw rek sëriñ bi bind bind ko ba mu àggee ba jàkkaarloog Moustapha daal di wax ne fa min tuuba bi taybata qad nazal naa nazulu sayidal euh, sahmal humama fa man zaara alhabiba wa saahibahi fala baxsan yaxaafu wala malaama ay xayral anaami wa mustafa yi diggante dariix bi ak mimbar bi guddi keroog la fa jàng alquran ñaar fukki fan ak benn ñaar fukki fan la ak benn ci dil qaada mu tarifa kaamil bi daal di koy def addiye seexul xadim ba muy dépasse sax jógee Tuubaa la ne dama bëgg aji néegu ba néegu yàlla bi siyaari ji Moustapha maa yaar yooyu yool ba ma ca am def naa ko addi sëñ Tuubaa ba mu ñëwee Madina Munawara Madina Munawara julli na fa ñeen ñeenti ajjuma weer wu mat la fa am ba mu fa njëkk ñëw rek la jàngab kaamil ci guddi gi tari ko dama ko addi Sëñ Tuubaa bés ba ñëwee Màkkatul Mukarrama foofu defal na su moom defal na ko fa loo xam ne néew na ku ma dégg defal nañ ko kaaba gi ci bopp dañ ko ko ubbil mu dugg ci biir ñeenti ji yëpp bu ne mu julli ñaar rakk ñeenti foofu duñu wax xibla ndax xibla bi mooy kaaba gi mooy kaaba gi dañ kii kii wan jant bi penku kii wan kii yëpp kaaba gi lay jiw mooy xibla bi waaye moom ñeenti jihe yi ci biir kaaba gi la dugg jihe ba na mu julli ñaar rakk jàng na itam ci kaaba gi foofii ci kaaba gi ñaari kaamil defal ko addi Sëriñ Tuubaa nga xam ne lu yëngu rek lu yëngu rek defal naa ko addi Sëriñ Tuubaa waaw xam nga sëñ Fallou da doon ko woyofal boppam yàlla da ko diisal gan bu fekkoon woyofalul boppam kenn dàgg ci moom waaye bëgg nit ñi ak yërëm leen ak bëgg leen dimbali dafa tax dafa woyofaloon boppam lool lool lool lool ba ak kenn ku ne boo ñëwee day wàcce boppam ba toll ak yow ba nga ñime ko ba mën a bay kaf ak yow di rey yow sax mm. di koo xam ni kiit soxlawuñ ci àddina dara dara ci li ñuy wax euh, orgueil wala titre wala euh, daraja soxlawu ko woon loolu moo tax jëfante mënoon naa jëfante ñëpp te jëfante nag ñëpp ñi ma jamono ak lu waay man rëy rëy rëy ak lu waay tuut tuut tuut dina mën naa jëfante ak te boo dikkee ci moom rek boo fa jógee soxal sedd ba looloo tax amante woon na ak mboolem ñi nga xam ni ñoo nekkoon ci réew mi tey kilifa yi diine ay kilifa ay ngir amoon na ñoom ñëpp seqante ak ñoom jàmm ak sutura ak teranga ak moslaa ak it diggante yu neex lool Cheikh Seyd Mouhamadou Fadou Mbacké ñi mu jamono teel ñépp daf leen daan jokk ñu di ko jokk ku mel na cheikh naa cheikh Talib Ouya wul du cheikh <coughs> euh, Saadu Abi seen jokkoo rafetoo woon na lool lool lool noonu la doon jokkoo mbokkam mu baax mu mu jamono <coughs> Seydina Issa Laay caw fii ci Cap Vert dégg naa masuñu umpante ci dara lu soxal diine daan nañ ci joxalantey kàddu daañ ci yebalante ay ndaw <coughs> pour bokk ca wax suñu waxee ba pare tànn ci la wax loo xam ne dañu nekk njëriñal àdduna ak àllaaxira bari na photo yoo xam ne soo ko seetee daa gis ñu bokk ci ant noonu nii la daan jokke mbokkam ma di suñu maam Cheikh Hadji Seydou Nourou suñu umpante ñoom ñaar ci dara dara dara noonu daan jokkoon teeg suñu wajuru tedd wa dalika al arifu billah bàyyi xalifa Niass mu xam naa naan ko Mouhamad Amina moom mi nga xam ne bàyyam yónni na ko yebal ko ay yoon mu ñëw njaareem fekk fa sëriñ bu mag ba ak ya nga xam ne dox na ci diggante suñu ñaari maam yooyu ak xasida bu rafet ba nga xam ne def na ko moom si bay xalifa Ñas waaye xalifa euh, xasida bu rafet ba nga xam ne Cheikh Mouhamadou Fadil ba nga xam ne kaana katiban wa kaana shaa'iran wa kaana adiban <coughs> delloo na ko ko muy mbégum ñëpp noonu itam la meloo nag an la ànde woon nag mbokkam mu baax ma Sidi Aboubacar Sy najdu Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu ñoom yàlla moo defoon rek cofeel ci seen diggante sëriñ bu mu kutnde ci Njaasaan Alaaji Ibrahima Ñas moom tam daana ñëw di ko seet si fii xalifa Ceneba xalifa Seydina Limaamu Laay ñi nga xam ne ñoo nekk fee ca jàmmal ca Siin Saalum ñoom tam daan nañ daan amante woon naag ñoom ba daan nañ fi ñëw fii sëriñ Ahmadou Dem bu Sookoon chérif yoo nekk ca Casamance nga xam ni am na ci ko ñuy wax chérif Makka ay dara kooku moom ko mu noon fii daan ñëw di ko seet si ak ñi nga xam ne ñoo jiite Euh, diine yi faral ci jul kilifa jul ya nekk bundu te Sénégal géfete euh, penko ak ñi nga xam ñoo nekkoon ngéwul yi kilifa yi diine ak ñu nekkoon waalo ñu nekkoon gànjool ak ñu nekkoon jolof ak benn bennet boo xam ne ay kilifa lañu yu am solo ku ñuy wax sëriñ Amadou Cissé bu Pire moom tam ku miinoon kër gi la ak sëriñ Ahabaat Sall bu Louga Alaaji Seydou Nourou Tall nag moom digganteem ak sëriñ bi dafa yàgg lool ndax dañoo xamante bu yàgg a yàgg yàgg am diggante bu rafet te lépp mais lépp lu mas a xew ci Tuubaa mu teew fi bi ñuy julli jumaa ji ñëpp ñëw ñëpp ñëw Amadou Ambali sax Amadou Bello sax ñëw bàyyi ko Nigeria Seyd Nour Tall bu mu de ñëw na keroog jëloon na parole sax ne ceeb yi ajeen mi ngi ci loxo sëñ Falilu Falilu woyof na sëñ Falilu woyof Falilu woyof na ba mu ñettoon sëñ bi ne ko tëddis kan la ci biir te dis gan na ci biir te dis gan ci biir ñu waayant moom ñëpp ñëpp koy dégg <coughs> rajo bi ko jël ñëpp koy ñi nekkoon ñëpp ñëpp la ñëpp la amoon diggante sëñ Babacar Sy ma nekkoon xalifa général di Tidiane ci jamono boobu ah, dañ daan téléphonante nga xam ne euh, maa ngi nangu ci Cheikh Tidiane Sy mii xalifa général di Tidiane yàlla na ko yàlla may ak te yàggal ko fi waaye ci làmmiñam laa nangoo mu ne bés bi ma bés bi ma njëkk indi téléphone ci kër sëñ Babacar Sy damaa dem Dakar indi ay tubaab ak seeni i appareil ñu dikk tubaab yi di yéeg ne ne mag ñëpp ne seex mii day fa mu jëm ak ñun seex mii day fam mu jëm ak ñun xamisu ko ñu yéeg monté téléphone yi monté fii yi fekk ba sëñ Fallu am na téléphone seex moo koy wax ma dégg ci ci ci làmmiñam nee ma noppi dégg nga daal di am numéro Cheikh Amadou Fadil téléphoné ko mu ne kooku ma ne ko Cheikh ma Tidiane dama lay jox sa mbokku Babacar si daal di sëñ Babacar wuy sëñ Fallu ne ñoom ñaari ñu waxante waxante ba seen xol sedd ne bañ noppee sëñ Babacar ne ma day Cheikh di xaw a ban bis waaye tey jii li nga ma defal musuma defal lu ni mel seetal lool sëñ Abdou Aziz nag moom fa tabaraka moom daal def bu ñaari da daan ñëw dem Ndindi dem Aliya ndax moom ñoo bokk ca ca ca ca Ousmane ca Mati Mbàkke bokkaat feneen dañoo bokk dañu jaxasoo loolu la góor gi ay jeexitam ci diggante Touba ak Tiwaawan dàllam masu ca noppaliku jeexit de masul far benn yoon mu bëgg Cheikh Mouhamadul Fadl def ko def ko mag def ko kilifa def ko soppe du dugg ci dara te waxu ceeg moom magam ju tedd ju baax ji itam du soxla dara te yëg na ne seenu jotaay mooy mën a tax lam ca bëgg mu am ko te neewul woo leen ma am yónni sëñ Mor bu sa jang wala mu wax ko Dramé ñu jaar fa ñuy jaar ba bàyyi Abdou dem Touba buy jukk dégg naa moom ci boppam mu wax ay yoon am na bés ñu woo leen ca Ndar gouverneur général woo leen am décoration yu ñu leen war a defal bu jógee France gouverneur général war ànd kilifa gi nga xam ne moo ko indi doonoon ministre ca yooyee jamono ñu woo leen ca Ndar Cheikh Abdoul Aziz nee na bi nga xamee ne yegg si nañu euh, comme que seeni tur moom Abdou Aziz la tudd mi ngi tàmbalee a lettre ak alphabétique bi Serigne Fallou njëkk a jóg ñu ne ko noo yow yaa mu ne déedéet Serigne Fallou mooy sama mag mooy sama kilifa ci jotaay bi ñëpp samay mbokk lañ la waaye moom laa gën a bokkal te mooy sama kilifa nag daal di jóg góor gi nee na mel na ne sax du ñàkk benn benn yoo xam ne xaw nañu tiisoo xaw loolu. waaye bi góor bi jógee rek te ñoo ñooñu am na ci ñu taxaw ñi mu àndal am ma sorong sorong ñett ñett escalier dem wàcc fukki chaise jox ko mu toog mu tegal ko ko ci wetu sëñ Fallu juróom-ñeenti chaise ya ca des yëpp ñam lenn ca ñam mu àndaloon te amuñu fu ñu toog ñu toog ba mu fa jógee mun na leen gars yi lu ngeen wax gis ngeen teral sa kilifa barke ba ca yàlla def du ko xaari ëllëg ci saa si la koy def la koy wane su fekkoon ne du dama jox sama kilifa cër bi ma ko jox te mu jaadu tawar kon ci taxawaay bi ngeen di kon te du ngeen xam ñaata heure lay duré maa ngi fàttaliku bi suñu wajuru tedd ba boroom cër yi boroom maye cheikhul xalifa sidi aboubacar si naj lu cheikh ilhaaji malikin radiallahu anhu ba mu génne àdduna sëriñ Fàllu Mbàkke mu ngi génn àdduna moom Sidi Aboubacar si altine talaata àllarba alxames ajjuma rakkam ju baax ju tedd ja toppoon ci ginnaawam di cheikh mu Mouhamadul Mansour di magu Mawlana al cheikh El Hadj Abdoul Aziz al cheikh El Hadj Mouhamad al Habib génn àdduna juróomi fan a dox ñeenti fan a dox seen diggante mu fekki ko. ba mu ñëwee jaale si bokk na ci la mu wax ci njaal ma ne Abdul Aziz su soobee yàlla li ma xam ci yow li ma xam ci yow ci bëgg bu mbokk ci di ko dox ak ponk kilif téef sa xilaafa gi dana yàgg dana neex te ci mbaaxu yàlla lépp loo ci sumb ci sa barke baay Cheikh El Hadj ak sa barke baay Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba loo ci sumb daa ko yeggale ak jàmm te itam nag lépp léppay sotti waaye lépp léppay sotti confirmer loolu ci ay taxawaay nag waxu ko rek dem waaye confirmer ko ci ay ñaan confirmer ko ci nemmiku bu dee bëccëg cinquante-huit muy at ma topp ci seen laxas bu Sidi Aboubacar ak Cheikh Alxaaj Mouhamadul Mansour radiallahu anhum góor gi ne dafay dekkal toolu jagsaaw ba mu ca nekkee <coughs> maa ngi fàttaliku boobu quinze ans laa am Cheikh Seyd Mouhamadul Fadil yónnee ko jiw wu doy wu mat wu rafet sax da nga naan dañu tànn lépp <coughs> boole ca ñaari fasu naaru góor yoo xam ne benn bi dafa weex benn bi dafa xonq <coughs> yu mat sëkk yu rafet nekkoon nañ ko jox abdu ne leen ko na ko baye jiwu bi na ko jiyee tool te ngeen xamal ko ne fàllu nee na mu ngi sawet rek loo loo loo loo nekk rek ma nga caag yow daal di jox njaboot daal jox ndigalu kilifa yi dëkk Tiwaawan ndigal njabootu maam Cheikh Maroumba Guèye ak sëñ Amad Dia Aminta ma fa nekkoon Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Mbacke mu jigéen mu nekkal fa sëñ Cheikh Mouhamadou Ahmad Mbacke Gaynde Fatma ne joxe naa ndigal lépp xam na sëriñ Abdou woote na ko ci liggéey muy jëm ci Jaksaaw mu jëm ci lu dul Jaksaaw ci yeneen yeneeni tool su fekkoon ñu jàpp sama liggéey nañ ko bàyyi te fekk ko ba lépp loole la mu bëgg ca loole mu woote lépp sotti ci soog a dem sombos sëñ Fallu loolu mosu ko ñàkk xalaat ci dundal mbokk gi ak wëllëre gi wax naa la fu ma gis la mooy jëkk laaj mooy ana sa bàyyi sid lamin mooy jëkk laaj yooyu dafa di dafa di wëllëre gu yàgg sëñ Fadil nag daan na ko toppatoo ndax amul xew-xew bu njaasaan daan xew def te du yeble moom sëñ Fadil dafa yeble njaasaan ñetti fan la daan gàmm ñetti fan mun daan teeru ganale gunge ba ca ganale ga mu yónnee ci bay siit lamin bay siit lamin ah waaye man daal sëñ Fallou daal dëgg dëgg moo xér moom biig biig rek biig rek mi ngi maa wax xam te sëñ Fallou nga ci tuuba waaye mu ni biig rek mi ngi may wax waaw léegi sëñ Fallu ca Touba ba moo yónnee ca ganale ga dafa ne ah, waay waay lii de waay fàtte woon naa ko jox démb de fàcc naa ko jox Sidi Sidi dem leen yóbbu ngeen jox ko kon ñoom bu dul gisu zahir gisee zahir nii sax daan doon gisee ci baatin te loolu wane na ko ah moom nag ak sëñ kër si ñoo bokk benn maam benn maam ñoo ko bokk taxoon ñu daan dundal mbokk gi fu nu mës a toll di ko rafetal ndax loolu moo di li nu war seen diggante ak moom dañ ko wegoon bu baax bëgg ko doyloo ko moom itam mu ànd ci lépp lu ñu nekk kenn ku ci ne ci ñoom loo ne ci xewu diine wala looy def di ko jëf ci lislaam bi da ko ko yëgal te moom itam dana ca ànd dugal ca euh, bokk ca bokkin woo xam bokkinu boppam la ca na xam ne moom la ma ak na nga xam ni mooy jikkoom mooy loo xam di ca dugg waxtu bu jot loo fi ma sa xew lu ne ci bala bala ñu caa def dara cuub cuub la ñu bu def nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne kilifa yi aada ñoom itam amoon na seen diggante rafet ak ñoom surtout ku ñu demee ni Alaaji Ibrahima Diop grand dakaar Dakar wala kilifa yu lébu yu mag yi Alaaji Mbaye Diagne Dégay Alaaji Thierno Wat Mbeng ñooñu ñëpp amante woon na ak ñoom ginnaaw loolu ki nga xam ni mooy kilifa rabbe yi ñu di ko monseigneur Thiandoum amante woon na ak moom itam ba ma jóge woon na Ndakaaru ñëw gan si ko Touba ci loo xam li si bi ko mayoon audience bu rëy moo ñu bokk fii ci Touba ginnaaw loolu it ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon euh, ci nga xam ne ay naari Beyrouth lañu wala ay tubaab tey di nekk ci commerce bi ak ay yaxantu ñoom ñëpp itam dañ doon wutaamanteeg moom ndax cër bi ko yàlla jox ak doole ji yàlla jox tax na ñoom seen njëriñ la woon pour kenn ku ne amanteeg moom amante ba gën ci yow ah, ñi nga xam ni ñoo fi nekkoon ci jamono yilif réew mi moo xam ci jamono tubaab yi la ak ginnaaw tuwaab yi ñoom ñëpp itam xam gu ñu xam ni amanteeg moom seen njëriñ tax na ñoom ñëpp dañoo wutoon amanteeg moom amante bu leer nañ ba kenn ku ci danga fi daan ñëw ginnaaw loolu ñi nga xam ne ñoo fi nekk di doxal politique ci jamono tubaab yi ba ci léegi itam ñoom itam daf leen ubbi boppam ba kenn ku ci ne di ñëw di ko seet waxtu wu jot dëgg la ah, ki ñuy wax sengoor ak Mamadou Dia ñoo ko gënoon a ba tax na Senghor xamoon na kan mooy sëñ Fallu xamoon na ko ndax eh, wan na ko boppam ca ba mu jafee ndax ca Kawlax la woon Senghor daje fa ak ñi mu doon xëccool kër gi sëñ Fallu ca Kawlax boroom kër ga ñii doon xëccoo sengoor la àndal àndaloon ak sengoor ñi doon xëccoo sengoor ñoo jëkk ñëw ci sëñ Fallu ca Kawlax moo tax yàlla lu muy doga rekk am na fu mu koy jaareel sëñ ñoo ñu wax seen soxla ba pare sëñ Fallu ca teraanga ga fab xaalis def naa fukki junne la woon neen loolu ngeen di wëgg wëgg seen daaba yi seen woto yi daf leen ko ci waay ñoo ñu nangu dem sëñ Fallu ni woon na nag ma jumaa jee daal ku ma ci ku ma ci ku ma ci ku ma ci dimbale rek ku ma ci dimbale rek incha allah di nga am réew mi waaw dinga am nit ñi ndax yàlla dénk na mu nit ñi ba Senghor ñëwee la mu joxoon ñi fi jiitu mu fabati li nu toll ni Senghor am ngeen wëgg wëgg ko seen seen seen woto yooyu mu ne ko déedéet jox na jël naa def naa ko addiya la mu wax ak moom jël jëlee engagement ci wàllu jumaa ji mu ni jeex na incha allah loolu Senghor xamoon na ko Senghor xamoon na ko e, ba tax na itam moom chance bi mu amoon moom Senghor dafa rëy ba mu ñëwee jëkk seet si Sëriñ Falilu waxu ko soxlaa moom ci boppam mais soxla Sëriñ Falilu la jëkk wax Sëriñ Falilu mooy ni ko sëñ bi kat damay lay seet si waaye danaa la wax ni bu ñu ma élire député dinaa def lu ma mën pour dimbale la nga àggale jumaa ji ngay def te juma sëñ fa sëñ Falilou bu ñu seetee am na lu bare Touba moo ko def Touba li ci ëpp yëpp entre 1945 et 1968 1968 euh, bi euh, sëñ Falilou génn àddina am na yu bare man bi ma ñëw euh, bi ma ñëw Touba bu ma seet sëñ Falilou ci néegu ñax laa koy fekk waaye liñ koy gën gën a jege taxul woon mu tëj buntam kenn ñëpp daan ñëw fu waayu jóge rek ci politique da di ko seet si di wax ak moom di diisoo moom loolu mooy li nga xam ni moo ci rek fuñ fu masanee dañ dem di ko fa fekke ñi nga xam ni ñooy wetu tubaab yi ñu fi nekkee ñoom itam dañu ko joxoon cër ngir xam gu ñu xam dayoom ci réew mi te xam ne dara mënta sotti ci réew mi te ci ba tax na gouverneur yi Sénégal yi fi daan nekk nekk ndar lu bokkul ak tournée yi ndax ku ci ne at mu nekk danga daan def tournée wër réew mi te booy def tournée faaw da nga ñëw Touba waaye ginnaaw tournée yooyu dañu ko beraloon léeg-léeg kenn ci ñoom jóge fa ñëw yend si fii ci moom ngan loo xam ne yi da koy wan ne ko yaa ma tax a jóg ngir bëgg lu ko neex se Amadou Fadil dem na ba tabaarakallaahu da ngay defe ne rek moom réew mi kenn nekk kenn nekkut fi moom dafa yëg dafa yëg li ko sëriñ bi defal ah boobu mu daan wax ak gaa yi di di di wax ba maay senegal lool Sénégal ñëpp a ngi fi. ñëpp a ngi moom dafay yëgoon booba fi li mu am ak fi mu ko jëlee ah, loolu da ko te da doon da ko doon dund de nguur gi fi ne musu leen bàyyi ak seen bopp. conseil de cabinet ñu naan dañuy booy dem ci daam daraame mi secrétaire mu wax la luy luy xew suba waaye am na jamono fii tey euh, chef de arrondissement moo xëy joxe ñeenti tur daam daraame gay ma gay baxaw faal jang deng leer jox leen ne leen ñii nañ leen ni koy budd barab sàngam diw barab sàngam diw barab yi am kuñ tudd ne ko diw diw de daf mun jàng mu ne déet kenn tubaab nekkatu fi tàcc yomb na lool ay wolof lay ay wolof la ñuy wax wolof rek la ñuy wax tubaab nekkatu fi ñu daal amul amul leneen ñu daal leen yóbbu fii réseau <laughs> Diourbel fii dégg ab góor noonu ak ab dara dara day dafa bokkoon ci yëf yi bokkoon loolu mooy yëg ne yëg ne mbir mi da war a farda sa wujur gars yi bu ku leen bàyyeeg sa bopp fi ne dañ lay dañ lay yóbbu fa la neexul waaye moom dafa yëgoon lim doon sur le plan politique am na jamono ci réew mi ay yëngu-yëngu yu xaw am waaye lu ci Cheikh Alxaaji Abdul Aziz war a mas a taxawee pour yëwanal lu génn cadre diine la wala ci cadre social la te social société ku ko tudd tudd nga diine ndax diine ëmb lépp waaye concerné wul Touba concerné wul Tivaouane waaye ci réew mi rek la Cheikh Seyd Mahamadul Fadal su fa góor bi yónnee lépp lu mu ca war a joxe ci ndigal wala mu war ca taxawu daf koy daal di fasaasi ay silaatam nag masul def inqitaa baynahu wa bayna ixwati yi fii Tiwaawan maa ngi nangoo ci làmmiñu suñu mag suñu kilifa Cheikh Seyd Ahmed Tijani mu ne dafa daan jékki-jékki rek wóolu ko ne ko waaye yow de de de ma tàggu de ma tàggu man kat sa sa sa bàyyikat da daan wax mën ñuy diisoo bu si Abubakar si waaye yow léeg-léeg damay dégg rek ñu xëy ca marché bëri ñu nangam nangam. sëriñ Cheikh ne ko nga baal ma ku bëgg sëriñ Cheikh la sëriñ Cheikh def ko bàyyi xool def ko bàyyi lépp di wax lool ay ngëneelam e, geneen wet itam moo di digganteem ak waa gànnaar diiru li mu fi ne ku doon dara ci gànnaar ceetu diine moo xam sayir la moo xam baatin la ñëw nga fi seet si ko mu ganal la fi ba yewe la ba président Mahtar de Daddah mi jëkk a nekk président république gànnaar bàyyam fii da daan ñëw ak ñeneen. ñoom naar ganal xam nga baaxuñ di kenn dañ lay lu ñu tu seet la testé la ba gis lu wóor a wóor ñu soxlaa teg fañ lay teg bu dul loolu ñu daal lay boole ci groupe bi. bu ko defee nag ñoom seen bopp nag ñuy jamanteeg moom ci xam-xam te c'est lu important la kenn ku ci ne tey da ngay def woy wa gën a rafet. sonn ca lool way ko ko daal di daal koy jox ci néeg bu mag bi xam ne bu ko yëree ba mu jeex fi saase day daal di wëlbati këydo laaj xale bindukaay fi saase sab jataay lay dafay weneen way woo dàq sa way jox la ko te di di di ci ndir su gàtt yow nga waar fekk na boo yow am nga ci fan yoo xam ne yaa ngi koy yaa koy defar a defaraat defar ak a defaraat defar ak a defaraat Mouhamad Abdoulaye Al Alawi téere boo xam ne mi ngi ko tuddee Nusratu Nadim def na ca lu bare ci sëriñ bi Cheikh Amadou Moustapha Cheikh Amadou Fadil Cheikh Maam Thierno suñu gaar euh, usra bi daal waaye beral na Cheikh Amadou Fadil yoo xam ni yi doy na waar ah keneen itam benn naaru gànnaar moom it Abdoulaye la tudd ba mu koy ba seen diggante jaxasoo am lu mu gis ci moom lum mu ci moom mu daal di jël xalima moom itam. dugal na ci gànnaar loo xam ne ci xeeti nga xeeti alal de kenn mësu ko faa dugal gaaw Sëriñ Tuubaa moo tax kër gi njooxe la woon li ma lay wax ci taalibe gi da ko indi ba ci digganteem ak ñi nga xam ne ñooy waa kër sëriñ bi di doomi sëriñ bi góor ak jigéen da ko taamal sëriñ Modou Moussa mooy mag ba ci soxna may muy caat kenn ku mu ci gis day mel ni gis na sëñ Tuubaa na mu fonkoon sëñ bi lay fonke na mu wormaale woon sëñ bi mu ragale bi lay ragale loolu mooy diggante mu ñoom bi Seexul di jógee njaareem di ñibbi si Tuubaa benn kër Seex Mudul Faadil moo nekk fii mu nekk di cees yëpp ña nga ña feneen kër gu mag yi di kër gu Daaru Xudoos gi moo ne fi mu nekk kër Cheikh Amadou Fadil ni ci gis gi yaari kër yooyu moo fi nekk boobu waaye beneen kër nekku fi booba kë yaari kër yooyu bu wéyee kër sëñ Amsatu Jaxate ngay wax kër sañ Omar Guèye ak kër maam Thierno gi nga xam ne mooy fii kër sëñ Abdou Khadir ne te boo kër gaa fa ne waaye maam Thierno nekku fi bi moom bi mu ñëwee la xam ne cheikh bi moom waa këram ñoo ko war a wër mu daal di ci ci lotissement bi mu daal di indi waa kër sëñ bi ñu wër seen seen seen sëriñ nii mu mel tey noonu Cheikh Mouhamadoul Fadil moo ko xalaat moo ko defee noonu. bañ ko war a màggal la woo kenn ku ne mu ne la yaay na fii sëñ Saliou wane woon fii ak sëñ Abdou Lahad ak sëñ Mourtala ak sëñ Abdou Khadir ak sëñ Souhaïbou fii te te teel yi ne sëñ Souhaïbou ko moom. waaw barke lépp moo ko def moom am kër rek ci gannaaw natt bi sëñ sëñ Fallou mhm. waa waa ko sëñ Tuubaa yi kenn ku ñu kenn moo jox ko lépp lu laal sëriñ bi moom da ko teg ca kaw ñooñu ñi nga xam ne kilifa yu mag yi xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bi te sëriñ bi seexal leen di seex su mag si moo xam ci bokk la moo xam ñeneen la te nga xam ne ñëpp sëñ bi leen def li ñu nekk la sëñ bi jeexeetal ci ñoom lool la looloo ko dey te kenn ku ñu ne amoon naa yow diggante boo xam ne da ngay def ne yow rek la yow rek yaa ko moom ndax moom daray sëriñ bi dafa tuur ci moom lépp dafa rëy ci moom ñoom ñoo ñoom sëriñ bi lañ ko def moom itam mu leen xooli sëriñ bi waaw moo tax ni nga wax tey mu fab ak njabootam jaxase ak ñoom rek parce que sëriñ bi rek la xool waaw loolu rek. ñi ñi mu gënoon jaxasul tigi tigi sëñ Modou Diarra moom dafay nekkoon moom dafay nekkoon gis nga wax na ci moom loolu lii ma waxoon waaye sëñ gaawaan nag moo doon xaritam boo xam ni eh, fa tabaarakallaahu seen diggante dafa xóotoon. sëñ ma sàmba itam dalaa wax ne sëñ ma sàmba rek laa yéem ma sàmba kaana mufiidal mustafidi wa man jal mustafidi isa man naas qad saxatu tagg wom ko def kenn mosu koo gis di wax ne nag mooy ki nga xam ne fu ñuy jëleeti bu di mu demee fu ñuy jëleeti koo xam ne xasaay sëñ dañu koy dañ ci gàggante te du ci du ci du ci taxabut lam ñuy wax mooy xaqiqa maam Cerno Birahim fa tabarakallah ataytu ataytu fii daari l moxti ataytu ilal mi'taay fii daari l moxti nga xam ne ñaari baytala yooyu tam tabarakallah ba ittee ko fa yóbbu waaye ba mu demee sëñ bi def la mu war def lépp xam ne kii doomi sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa mooy sëriñam lépp daal di baax mu daal di dellusiwaat ñi nga xam ne itam ñoom la bokk ñëpp sëriñ Tuubaa ku ci ne wala ñoom la ñoom la sëñ Tuubaa bokk ñoom sëñ Mor Anta Sali ku ci ne dalaal jox cërëb way jur mm-hmm. bàyyi diw la la wax sëñ sëñ diw bàyyi Ceerno bàyyi sëñ ñi nga xam ne nekk na ko di dimbale ko na ko ay xetali ko ay nit ñoo xam ne ñi dañoo dem ba àdduna jot leen ba seen sag di bëgg a sàggi ko te ñuy boromi kersa fayal leen i bor wala xetal leen ci xaalisu boppam la mu ci def kenn xamuñu ko toll ay jàkka la mu ci tabax dafa baree bari boo ne su te bi ci gën a mën a ràññee ku ñu mën koo xam mooy jàkka ji ci mbàkki xewal jumaa ji ci mbàkki xewal ay jàkka ki jumaa yi ndax daan tabax yi jàkka di bi ñuy bi muy liggéey jumaa ji itam jumaa ji at mu ne mu joxe ci million jumaa ji Sénégal jooju at mu ne joxe sëñ Fallu joxe ci million at mu ne sëñ Fallu joxe ci million ba ba ba ba ba ba ba ba ci lu loo xam ne lu wér. jumaa yi Ndakaar yi ki bañ ko tabax diir lañ ko tabax ba bi mu noppee at mu jot man mii la daan jox xaalis maay dem yóbbu leen ko. E, gannaaw loola ñi nga xam ni dimbali na ko également ci ñu néew doole ñoo xam ne ñii amuñu benn pexe bu dul moom mënisu ko lim te dafa ubbi woon boppam ba ñëpp mën agsi ci moom te ko agsi ci moom rek boo ko soxla mu fajal. yooyu nag nga xam ne moom la dimbali mbindeef yi bari na bari goo xam ne gi dama la ni moom mëni su koo lim te li ci gën a doy waar moo di lu ci ne bu koy def sutura lay doon ak secret yaag moom rek ku ko xam yaag ko wax tab gi moom dem na ba si yeeni fil bi wal bu'di fii nufuri na daw ki ko jege ki ko sore ki làkk ak ki làkkut teg ñépp yem ci moom ci ku ñëw ngir soxla. doo noon koo xam ne li mm-hmm. mu yëwanal ci dundu àddunaam yàlla rekk ko xam mm-hmm. te gis nga mbaax ku yàlla sedd jaam na ko ñépp nangu mm-hmm. bari na koo xam ne ay gàllankoor dal na la ci sa dox ci lefu àdduna mi nga bëgg a dog dog ci lañ ca war a dog yàlla ne la jot na sëkk nga dellu si ci man bari na ku ci am ay tolof tolof yi ci lenn ti mbir la ko waral moo di bañal nit cëram wala weddi ko waaye Cheikh Sidi Mouhamadou Fadel baraka la maa ngi nettali léegi sëñ Mouhamadou Fadel koo xam ne da daan ñëw rek jarul ñuy tudd turam waaye nag booy jur la te mbokk la waaye ku neex la woon bëgg lool nag sëñ fal xam ko loolu itam xam nga moo tax muy jaar ak moom foofu xam ne du mu jaar ak moom de dana ko ko nangu fekk du lu yàlla tere moom daal ñaari fan bàkke la dëkkoon ñaari fan ñett mu ñëw ne ko soxna sa dafa yewi ko mu jox ko woote nañ ko jox lii nañ ko jox ceeb nañ ko jox dugub euh, moom da daan naddi rek du làmb du sañ wala muy jël xaalis di wut du mooy di weñ di ay naddi rek jox la ñu jox ko loolu lépp mu dem kañ la bés ba mu ne ko suba la dem Mbàkke waaye mën nga bañ a yàppale de sàlla sa jaboot dafa nekk ñëpp dañuy teew kon boobu bul kenn beneen yoon mu ñëw soxla sa dafa génn te juróom benn weer ci to ah, lu mu am mu ne ko góor la am sàllaaw yow laa ko bëgg a tudde góor gi kontaan jaar fa mu jaaroon mu ëpp lool sax la mu ko joxoon xale ba xaw dëgër tuuti nag ba war a toll xëy na ci juróom-ñaari at jëm juróom-ñett mu ne ko dañuy xëy suba Touba siyaare dama la yóbbu ci sëñ bi sëñ Fàllu sama mbokk bu baax ma sama géer ga sama sang ba sama nang dafa nag dama bëgg nag ab ab bind laa bëgg muy wala jàngal na mokk nag da gàtt xel yëpp nirul ne sa baay bii di wax yow amalu takk su demee dama naan fallu su ma nee fallu ne neel te moom ba du la tudd ba dara ma nee fallu ma ne mbakke mu ne fallu mbakke xale bi naan fallu mbakke fallu mbakke mu ne ko su boobu jafee su ma nee galas neel mbakke ah, tabarakallahu xale bi di ko nafar di ko nafar xam nga nag li naan bind bu bëri bind soo ko mokkale bu moof day dem ba nga fàtte ah, ñu wax ko ko ne ko góor gi diw ñëw na rahmatullah ko du neexoon la rahmatullahi taala alayhi waxtaan mu ne ko sàllaw indi naa la sax sa tur loo bëri ne mu ne pat mooy ca sàll waay mu ne pot galas waaye galas pot daal jóg ci loxo bi ne daal di ko dompaal yow lu ma la waxoon mu ne ko ah, man kat bàyyi dama dégg nga ne galas ak Fallou mu ko lu ma la mu mu jëm kaw yegg si sëñ góor gi xam lépp xam lépp dégg naa bes nag bés nag mu ñëwaat nuyu sama baay Fàllu radiyallahu anhu waxtaan ak moom ba jóg di dem waxul dara góor gi néew ko soxna sa am na gan wala sëñ Fall ni ko ale mu ne ko mu mm, ne mm, mm. dégg dégg dégguma tey dara pour mën la jox xoolal ma xoolal ma xoolal ma boobu xeetu jëfin jëflante radiyallahu anhu moo tax benn arab wala ci magu arab nee na bokk na ci li ñuy defe nit sang ci ñun moo di ñu di ko nax ci darajaam di ko nax ci alalam mu xam nax ya te nangu ko lu nit ñi xamul ci sëñ Fallu sëñ Fallu nitu sunna la woon kon na xam nga julli googu sëñ Bamba julli ca Ndar jàngale yi bari génn na ci bokk na ci lu maa ngi koy jële ci sëriñ Abdul Quddus Mbakke yenn yàlla yokk leeram mu ni maam Biraayim Ceer maam Ceerno Biraayim moo ko wax dafa ni ma julli ga sëñ Bamba julli ci bureau gouverneur julliwu fa suba julliwu fa tisbaar julliwu fa takkusaan julliwu fa timis julliwu fa gee kon julliwu fa farata li mu fa julli nun koy tuddee naa la kon sunna la maam Cerno nag nee na nekk ci euh, euh, euh, fonk sunna ba nekk ci bés boo xam ni ñëpp jàpp nañ ni bés bu xat la pour yow waaye nga dem jooxe sunna googu yow doo fekk farata di ko sàggane fekk farata di ko sàggane ah sëñ Fallu daan na wax naan ku fonkul sunna du fonk farata waay waaye bi mu demee ba nga xam ne mel na ni mbir mi nag liñ ko doon def loo mat na mu wax loolu mu wax ne baatuma fi naal te loolu ku ne xam na ne ku ko wax te muy te muy lu wér léegi nga dem ndax nit ñi baaxuñ loolu waaye seetal keroog bi mu wooyee Cheikh Abdoul Ahad ne ko ñëwal ñëwal génn nag ñëwal génn jox wax moom la wax moom Cheikh Abdoul Ahad jóg wër réew mépp wër réew mépp moom it na fa tabaaraka nga xam ne fu mu yendu su su su su su su su suñ wàccee rek lañ fa daje lépp ñu ñu mu yónnee ko ba mu wëree ba réew mi lañ ba mu dikkee mu ne ko ndax dem nga génne mu ne ko mu ne ko demal génne nga xam ne génne la mujjee génne keroog lu yéeme yéeme fa tabaarakallaahu xam-xam ba waaye lu bari lañ dajale waaye ba mu dikkee sëñ bi dafa reer ne ko ne ko lii di yaa ko mas am yaa ko mas am <laughs> ndax ndax dafa jóge ci ay ay ay mbir waaye mu egg si nag mu daal ne mu ngoog nag mu ngoog ma daal di waaj fi ne daal di waaj daal di niis gàtt la fa teg niis gàtt la fa teg daal dem teg bu ma teg sëñ Tuubaa foo ko kenn tegul léppam di sëñ Tuubaa loolu rek mooy li nga xam ne moom laa ci mën a wax ni nan ko roy ci loolu yi ndax loolu moo dëggal la mu waxoon sëriñ bi ni ko jaay naa la sama njuréel jënd ko taalibe ndax ku ne xam ne ni doomi sëriñ Tuubaa dal tuum ci dara ja waaye ak taalibe gënal ko ba tax mu jaay ko sëriñ bi nungul ko mu delluwaat ko ko àddiya kon loolu ma xam leen ni noon ñi di taalibe nan gën a fonkaat taalibe gi te xam ni kat lu boo xam ne kii jënde nañ ko doomi sëñ Tuubaa loolu dara tollu lu mu am nag moom taal bi goo ko may kon loolu rek la kon nag bisam bi bu ñëwee nañ ci góorgóorlu bu baax a baax la su bisam bi ñëwee duñu mën dudul ñaan yàlla kilifa yi yàgg ko taxawee Cheikh Seydi Mouhamadou Mokhtar ak suñu mag xalifaam ba nga xam ne tey moo fa nekk wuutu ko eh, ak njaboot ko yëpp bés boobu itam bi fi mu ko yóbbu woon fi ko yóbbu tey jàpp naa ne gannaaw màggal Tuubaa gu mag gi safar bu mel ni kasu rajo bii nga xam ne moom lañ koy defal jàpp ma ne euh, geneen demee na ni boobu itam Cheikh Ahmadul Moustapha Fadilu yàlla na ko yàlla dolli ay gërëm fa mu ne moo ko defal ni Cheikh Ahmadul Fadil defal ni Cheikh Xadim bés boobu moom itam moo ko defal ndax kasu rajab sëñ bi ni mu ko daa màggalee dalaa ñëw bu ne tey jii la guddi ñaar fukki juróom-ñaar mu ñëw daaru salaam daaru salaam nga xam ne fa la feeñee Cheikh Moudou Moussa feeñ fa mu dem ci kër mbokkam di xaritam di sëñ Moudou Ma Cheikh Moudou Mamoun fanaan fa ñu fanaan a def seen i yëf jàng seen alxuraan def seen i def seen i berne ba bët set mu jógee fa jaar yoonu jolof yoonu jolof boobu nga xam ne yoonu jolof yoonu cosaan la jaar fa dem kër mbokkam sëñ Afe Mbak sëñ Afe mi nga xam ne ñoo bokk soxna aw busu fa lay jaar booba am na ñoo xam ne ña nga woon Touba dañuy teel a dem loolu ndax booba xéewal ya ay li ñuy wax dàkk dàkkare boo fa demee da ko fay bàyyi nga xam ne booba yëf yi demeewul nii ay séri dënk la ñuy lal ci buntu kër gi sañ aafi génn def boppam neen def tànki neen Cheikh Abdoul Fadil ñëw mu ubbil ko buntu ñu jàppoo ñoom ñaar jaar ca séri dénk yooyu bañ egsi ci néeg bi sañ aafi boobu benn baraagu dénk la am amul ñaari néeg benn baraagu dénk la bu dikkee mu jàpp Cheikh Modou Fadel ba loo ko ci lal bi toog ci suuf moom ñëpp nuyoo ba noppi daal di génn ñoom ñaar ñu ngunu nguni ndir su gàtt daal di génn dem Dakar yi daal di tasaaroo xéw yi daal di tasaaroo Cheikh Modou noonu la ko defee diirub li mu fi ne kon kon moom lépp loo leb rek dañ la koy dañ la koy fay yaakaar naa ne it Cheikh Modou Fadel euh, yàlla defal na ko tawfiq lool ci njaboot ndax bàyyi na fi njaboot fa tabaarakallaahu na yàlla dolli waaye ñim fi bàyyi day mel ni kay kay caat ci ñi gën a watu alxuraan ci yoon yi la bokk Cheikh Ahmadou Moustapha mii nga xam ne moo ko njëkk a watu moom wax ci làmmiñam ni bi mu noppee ci sëñ Mor Sànqe ci alxuraan Cheikh Ahmadou Fadil dafa bind leetar jox ko turandoom Cheikh mu Moustapha nee na bind naa Cheikh Ahmadou Moustapha ñeenti kaamil ñaar yi maa ngi ko bindee Daaru Naim benn bi Touba benn bi Taïf Cheikh Amadou Moussa moom bi moo ma ko wax ci laa mi ñëpp ñeenti kaamil ne bindal na ko sëñ Modou Ba mu noppee tarbiya ko ba noppi nag la bindub kaamil moom itam la bindub leetar soo ko wàcce nag indi ko ci Cheikh Amadou Moussa waaye daa mel ni moom alxuraan borom bi den cee defal loo xam ne daanaka rek moom moom moom moom tawfiq daal la loolu itam na ba gis nga tabarkàlla gis nga sët yi sax am moom moom moom da xam ni rek luñ fàggu la waaye du du du ngóor a daal da Abdul Xaadir daa wax ne kuñ dimbale laa xam waaye xaw ma kuñ xambaar dafa mel ni ñoom daal am nañu dimbale daal mbokk yi kon loolu mooy li nga xam ne indi loolu nañ leen ko ci lenn ci dundu Serigne Falilou gis ngeen mbokk yi nga xam ne ay kilifa lañ yu wuute dundoon ak moom seer yi nga xam ne indi nañ ko ci jaxasoo gi jaxasoo woon ak ñim jamono te ñu seq ñëpp jàmm ak lu rafet waaye réalisation yi nga xam ne it liggéey na ko ba ñëpp tekki seen bët moom Cheikh Amadou Fadal ba 1963 68 1968 sunu borom subhaanahu wa taala e, dikkee coobareem mu wàcc ab liggéey ki njëkk a toog xalifa ci keppaaru Serigne Falilou Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké ñu gën ko xam Serigne Modou Moussa Dieng liggéey fi liggéey yu rëy ràññi ko woon lool nekkoon jàmbaar yoo xam ne bi mu wutee sëriñ Falilou fii sëriñ Falilou bàyyee woon fi la fabee euh, réalisé réalisation yu am solo dundal relation bi doxoon diggante sëriñ Falilou ak ñi jamono teelu ñëpp rafetal ko liggéey ci liggéey yu am solo bi mu fi bàyyi ko moom it sëriñ Alxaaji Mouhamadou Lamine Baara mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko moom it ci njàmbaar ga ci yaatu ga ci fidwa ak jikko yu rafet ya moom it liggéey fi liggéey yu am solo yu yaatu Eh, ci dundal lii nga xam ne moom la doon waxtaanee muy jëflante ak seq gu rafet gu sëriñ Fallu seqaloon ak képp kum jamono teeloon alxaaji Baara moom it dundal ko yaatal ko lool. ay réalisation mit ñun jamono ñëpp xam nañ ko ci taxawaay yu rafet ya ba borom bi subhaanahu wa taala moom it jëlee ko fi. moo toog ci eh, xilaafa gi di sëriñ Abul Baraka Mbàkke ibnu Cheikh Amadou Fadal yàlla na yàlla guddal aw fanam wéral ay cëram. moom it mu dal di dal sas wi nga xam ne moom la ay magam nekkoon rek sas wi weesuwul liggéey lislaam yaatal ko e, tasaare njàngaleem Cheikhul Xadim radiyallahu anhu e, jikko yi rafet jàngal nit ñi teet leen teg leen ci asiraatul mustaqim e, yàlla na yàggal yàlla yàggal ab taxawaayam guddal aw fanam mottali ay mébétam moom mboolem njabootu Cheikh Amadou Fadal gi mboolem jullit yi fuñ mën a nekk mbokk yi kon ñi ngi leen di jox dox daje incha allah taala bu ñu bi subhanahu wa taala déwén ñu indi leen beneen documentaire ci geneen anam ci dundu Serigne Falilou eh, ñu ngi sant mboolem ñi nga xam ne ñoo jàppoon ci liggéey bi ba mu yem rawat na kilifa yi nga xam ne dugal nañ ci eh, seen kaddu ak seenu jàppandal mbir mi feeñal ci seen yéene wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa